xam nga si kii scandaleux ñu ne Karim Wade dafa dafa luubal cent trente huit milliards bu Sénégal est-ce que xam ngeen budget agriculture Sénégal ñaat la. ñaata la cent milliards. Hmm. ñu ne Karim Wade dafa luubal cent trente huit milliards état du Sénégal ba mu ko waxee depuis deux mille treize ba léegi génnewul dara dem na wër wër wër gisul dara léegi nag man moom. bokkuma si ñu gëm ne Karim Wade moom set na wicc wicc si lu jëm si gouvernance papam waaye damaa gëm ne tey. tey bu fekkee nanga jël nit ki ne carrément dafa luubal cent trente huit mille dañ ko da ko war nga ko amande cent trente huit milliards mm-hmm. te mënoo teg dara ci loxoy sénégalais yi tey kan la war a rendre kan la ñu war a demander des comptes c'est l'état du Sénégal ñoom c'est la justice ñoom la ñu war a laaj ana suñu alal tey Karim Wade tey moom il s'est constitué prisonnier bañ ko convoqué Doha la ñëw Sénégal dem ñu juge ko tëj ko ci kaso bi pendant trois ans ñu tëj ko ci Rebeuss génn ko fi yóbbu euh, exporté ko fële euh, Dubaï donc dégg nga naan Dubaï sax Qatar. Qatar donc c'est-à-dire que tey état du Sénégal suñu justice bi ñoom la ñu war a demander compte. mais pas à Karim Wade. Karim Wade moom li nga xam te ne tey moom moo été disposé ci pour que nguur gi leeral li nga xam te ne tey moom lañ ko jiiñ donc. moom bu fekkee ne tey jaar na fu état bi jaar na fu mu war a jaar yëpp def na justice bi def nañ seen ay enquête def lépp. Mm-hmm. ba conclure. Mm-hmm. ba ne carrément ba ba condamné ko ba ba ba amandé ko donc ñun askan bi état du Sénégal loolu moom la ñu war a jox ñu baaraam tuuma ak justice bi mais pas Karim Wade